أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bañ sante yàlla julli sangu sangay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa diine ak kilifa aaday di ziar mbooleem Baay Fall di leen wax ne seen émission ndogu yi ak Maodo Garmi comme nu ñu leen ko waxee woon tey ñu ngi fii Médina war a ñëw xool waa Médina ni ñu présenté seen ndogu ñu ànd seeg waa rue 22 angle cinq tey ci émission ndogu yi ak Maodo Garmi seen soppe seen xarit seen doomu ndey naaru ajaratu Oumy Gueye Garmi bii ne naa leen nag du yomb émission ndogu yi nii lay demee saa su ne ni ngeen ko gisee fii ak feneen nii lay demee saa su ne li ñu waxoon rek tey mu ngi nii ndogu yi ñëw nañ fii tey ci Médina jàkkaarloog waa Médina xool nu ñuy préparé seen ndogu Mbacke Balla gannaaw bañ la nuyoo di leen ziar di leen di leen dokkeel ci bis bi di la jox sa wàccuwaay waay nga lay bàyyi nga nuyoo mbokk taalibe yi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant suñu yaakaar tey ak di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, di santaat maam Cheikh Anta borom gaawaan mi ñuy tax moo ñu ñu boole ci sëñ Touba suñu yaakaar ak suñu bëgg ak suñu sopp yëpp euh, yàlla dogal mu jóge ci moom. kon ñu ngi santaat maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam baax bu ñuy boole ci sëñ Touba. mais Mbacke man li ma lay njëkk a laaj Balaye sax tey dañoo ñëw fekk la nga yor këll gi takkoo ci tali bi di Madial Mbacke Balla loolu tey bu la doon laaj Mbacke lan nga ko xiir ci tey Balaye sax mu yor këll gi wàccee boppam ñëw taxaw di di Madialal Baye Fall. waaw wax naa la ko léegi garmi nee naa la li la yem moo yéem ñu bari ndax maa ngi fàttaliku tey ñu ngi ci cinquième édition bi ren mais bis mu njëkkee yor fii këll dama fekk xale yor këll bi rek mën a ma Madial mu yéem leen mais ñi ma xam ci Médina bi yëpp bi ñu ma gisee yër këlik am ñu bari ñoo xam dañu da am nu mu leen def sax ci àll wax bi ñu leen gisee dañu tiit ne waaw Mbacke yow da nga yër këlik gi ma ne waaw mais adduna moom loo doonul taalibeem doonul sëriñam Mbacke Balla buñ la xoolee ay ndaw rek nga nekal te ku gis xam ne nekk ndaw dafa metti Mbacke Balla nooy dundee ak ndaw ñi waa ndaw ñi mooy boo xam kooku kenn ku ne xam ne fii ko ñu ngéwal la 55 bon rue 23 angle angle 22 ñëpp xam ko muy koñ boo xamee ni que am na lu ñu baaxoo woon di tëgg ay sabar dina ci yeneen mais teewul ñoom bi ñu ñëwee li ñuy doon doon doon tëggkat yi sabar ay Baay Faal lañu ndax jeunes yi ak jeunesse bi moo ñëwee dugg seen biir damaa wàcc ci terrain bi xool leen la ñuy def euh, dingatuma leen ci ànd ak ñoom suñu amee seen programme ñoom di ko tëggi suñu amee cant ñoo koy ànd loolu mu doon rafet boo xoolee grand Mbaye Dieye Faye ak ay frère ak ay jarbaatam rek ñoom nekk fi ak famille Seng Seng waaye biñ ñëwee ñoom itam chaque corps ñu ne waa pourquoi pas ñun mënuñu toog di cotiser 5000 5000 wala ku am lu waaye am def ci ñu ànd ñun ñëpp def li tubaab naan union fait la force ànd ak mboolem yëpp du ndogu jotee mayer këll ji di màjjal kenn ku am koo xam ne loo war na caa def mu def ca koo xam ne lii ñor na ko mu ñëw def ci ñu booleeg li ñu am bu ngoonee jox ko jaamu yàlla yi ñu wax Bamba ñu ngi koy ñaan mu ñëw jàpp ci ndaxam ñi ngi dem sax année yëpp ñi ngi Moustapha maa ngi lay nuyu. man lay siyaar Baye li ma lay njëkk mooy. moo tax bi ma ñëwee Baye Fall yëpp ne ma demal ci am ni Moustapha. waaw loolu nag moom ak cant la ndax euh, rue 23 angle 22 bii sama ay jarbaat ñoo fi nekk ak sunu ay doom yaa ngi may dégg ak sunu ay mbokki taalibe waaye boo gisee sëñ Maodo mbakke moom surtout maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam wóllare xale yi la. lii bokk na ci ñi sos waaye xale yi nga gis nii dañuy taalibe sëñ Ahmadou Mbakke mu sëriñ Fàllu mu sëriñ Mourtala Mbakke man nag may taalibe Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbakke jiit leen ci kër gi doon seen jëwriñ ñu may wax nag soppi alaaji Falilu loolu moo waral ñoom ñii bi ma ma ñëwee ñu ne nañu jox Mouhamadou Moustapha lii mbirum taalibe waaye mën nañ koo gën a yaatal ndax yaatal gi mooy kuy jullit rek sa xel war na mën a dem ci mën na mel nii ndax lii dafa bokk ci social social mooy dimbale du ñëpp ñoo mën a toog seen kër ndogu am na ñu ndogu di fekk ci yoon wi am na ñoo xam ne même bu leen fekkul ci yoon wi mënuñoo ndogu loolu dogalu sunu borom la di mu rafet nag et eh, bi ñu ko tàmbalee léegi mi ngi yokku dañ tàmbale woon ci kafe rek. waaye léegi dem nañ ba café gi rax ay pain au lait di am chocolat di am beurre ndax am na ay bonne volonté yoo xamante ni ñu ngi si dugal seen loxo di doon ay taalibe am na ñoo xam ne aussi ay jullit lañ rek ñu bokk lépp nag ñu si dugal seen loxo bu ma sañoon nag ku ne ci Médina gii ñu di la tudd que Bamba Fall que Cheikh Ba doon ñi nga xamante ni suñu ay jegeyaale lan suñu ay frère ñu koy dégg lu fay day ñëw fii ci la bokk wax di lancé appel di woo Mbaye Dieye Faye et tous les frères ak askanu 5-5 yëpp rawatina nag bokku taalibe yi ndax lii taalibe rek ko moom. moom la ñuy taxaw nag si dañ ko segg di ko waacaay si waacaay koor yi daal. loolu parce que vieux man dégg naa da koy am est loolu dëgg la. waaw dëgg la parce que Serigne Touba ñu jagleel loolu ba ñu doonee murid rek. yaakaar Serigne Touba la lépp yemb daal lu ñu fëgg rek day yomb. waaw maa ngi lay nuyu. ah delloo si ànd wér. Fall est-ce que saxaw bi sax na suukar gaay. ah saxaw bi instant yii lii war na mën a sax de. Ah. waaw mais gars yi saxaw lañ bëgg wala café. gars yi genre yëpp lañ bëgg. am nañu bëgg ñoom am nañu bëgg ñoom. gars est-ce que gars yi gën nga bëgg café gi gaay. non des fois saxaw bi day jeex de. non man saxaw bi sax laa àndal. Ah. waaw waaw mais ñaari fa nga romb mënuma laa ñàkk ba xam nga ni ku dégg mel ci koñam li yombul jeune talent bu toll ne moom ak ni succès mel te ñu fekk fii ci Médina ci diggu koñam. xaritam yépp taxaw ak mbool ay doomu ndeyam taxaw ñëpp taxaw El Hadj lay nuyu. waaw gan maa ngi lay béggee maa ngi lay siyaar di di la jox sa wàccuwaay ci koor gi di leen wax ti di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan suñu borom mu jéggal ñu suñuy bakaar ba pare at bi dàqal ñu at yëpp te yàlla nañ ko fekkee ati at di kontaan ci sa teewaay parce que yow da nga baax maa ngi yow démb la te yàqoo ci dara boobu ba léegi nga gore ñëw euh, seet si ma fii Médina fi ma dëkk fi nga xam ne 5-5 mooy suma lépp. Ah, nga ñëw fekk ma fii kon damay am contentement sama xol sedd na waaw waa lii nag depuis ba ba ñu ràññeewee ni maanaam ay taalibe lañu ay jullit lañu ay ay ay ay ay ay citoyen lañ ba pare am na ñoo xam ne dañuy woor ba pare te comme 22 avenue la moo réussis ñoo yem avenue la euh, kaar yi dañ fi romb nit yu bari heure ndogu ci ci mbedd mi la leen di fekk moo tax ñu ne ñun ñu dañ ñu teg ci angal bi dañ fiy teg kafe gi teg meew bi teg lépp pour nga xam ne ñi nga xam ne dañuy romb te avant ñoo yebb seen kër dina fekk ndox passé ñu jox leen tàndarma jox leen mburu jox leen café li ñuy liggéey suñu borom di ñu may xéewal di may xéewal ci loolu la ñuy jël def ci ndogu ay ndogu kenn jàppalewuñu si kenn dimbalewuñu si ñun ñoo koy defal suñu bopp parce que booy def te yàlla tax bul xaar kenn ku la ci jàppale parce que ndax da koy def te yàlla rek tax te maanaam bu suñ borom di fay yow lay fay kon maanaam loolu duñ da nga xaw a sax fiir doo bëgg a kenn dugal ci sa loxo parce que da ngay bëgg maanaam jariñu ci bu baax a baax barki borom Tuuba dong dong nga naaw. dong nga naaw. doxal dong sympathie bi daal mbooloo bi Sénégal dong nga naaw. xoolal femme bi xaw ma ko xamaandu ma ko. dama gis jàkk ñuy dof mën na ko ma wax ci oto bi dof jot na. jaay na yàlla fay jàkkal. da nga see des yéen di def da nga war ko ngoon jot. donc fekk na ci mais ah, nag ah, mos a ko jox na. mën na ko mën na ko mën na ko. ndax lii am Dakar moo am Touba. Dakar léegi booy xool danga naan comme Touba foo génn lekk geeg naan bi tubaarikàlla dara desul dara manqué wul ndax dëgg yàlla lii moom yàlla na xéewal yi gën a yokk mu gën a baax. am na leen yàlla fay ci teew bi ba bis ban gisee ñu naan nañu def si kanam rek la jëm. sama bañ la fi jaar Adja Mbaye fi jaar bilaay Adja Mbaye fi jaar gis naa jeunes yi indil ñoo la jox mburu bi nga yor waaw ñoo jox mburu bi ma yor café bi nga teg ñoo la ko jox ak café gi lépp ñoo ma ko jox loo ñuy def kon affaire bi neex na trop kontaan nañ ci lool koor gi war na am chaque chaque chaque chaque deux ñu koy woor quoi lu tax loolu ndax dafa baax est-ce que yaa ngi lu neex lool nooy wooree ah woor rek comme woor ñuy waxee woor rek. du ko defal yow nooy wooree nooy dundee sa bopp. ah maa ngi koy dund daal sëñ bi maa ngi woor woor yu neex daal. woor yu neex. loolu neex lool. ñu ngi leen di def comme nan la. nit ku woor ba ngoon jot. donc fekk lu si biir dugub dafa def merci bu baax dundal Fall amal jàmm merci beaucoup. l'islam santaane. ay taalibe tamit ñu war a participer tam si développement wu réew parce que du ku nekk rek la sa loxo jot sa ginnaaw donc ñun waa koñ bi wala jeune yi créé di ko def at bu jot te gisuñu si gisuñu si tànk ginnaaw kanam rek lañ si chaque année rek yokku ci kontaan nañ bu baax لنا دوائي ومنجلي شفائي ودوائي محمر الإباد بدوائي ليدفعوا بالأن البلاء ثم على من حيث ما زلم يا رب بغ وبالفلوى محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام إلى بنا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بلو يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بلو يا كريم يا عظيم jërëjëf Mbacke Mbacke Balla lii loo siy yokk waaw lii mu def nii moom wax dëgg yàlla ñun waa kafe gi Daaru Salaam café gi xam nañ ne ñu ndax fii la ñu doon nekk di sikkar ak moom nekk fi cant gu ma saam rek fii bokk hélas bokk na ci ñi ko sikkar ba pare laajut kenn un day ñëw ngir jëmee sëñ Touba jëmee Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni sëñ Ahmad Mbacke Noreyni tamit boole ñoo moom muy suñu rakk suñu xarit ñu koy nuyu à passage bu baax hélas moom lii muy def nii bettuñu ci moom moo tax euh, ci wàll gi muy yëngu bu ci dee yëngu rek fu mu wootee rek ci li muy yëngu xale yëpp ay dam wuyu ko ndax xam nga euh, jamono ji ci réew mi doon fi star dafa xaw a doy waar ndax doon fi star da daal di yëg sa succès te moom yëgul succès am tout le temps Baye Fall la Baye Daaru la loolu lay dund ak ñun gis nga boobu ba léegi ambiance bi nekk ñu ngi koy ñaanal succès bi mu bëgg ci àddunaam suñu borom defal ko ko te ñun nii waa ñu ngi ko ci ñaanal di ko ci confiance kon loolu dañ ko fekke daal te alxuraan nee na wa ma sayidna ila bi ma alim na nit ki li ngay seere da koy fekkee lee beneen bi des ñuy tëje muy waa Daaru Salaam Daaru Salaam café gi ñoom mën mënuñu leen a fay ndax ñoom ñoo ma jël jiital ma waaye mbay géey mbaay mooy jëwriñ ji man nag euh, day demante askan bu ne rek euh, ak yoonu murit li ñu baaxaw ko sant Mbàkke ku ne yaa jiitu comme ni ma ko waxee léegi rek maa ngi santaat waa kër maam Cheikh Anta Mbàkke borom Daaru Salaam yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ma boole ci sëñ Touba te Baye Fall bi mu ñëwee fi 23 ñoom ma rek comme ni ma la ko waxee bi dama ne la waa 55 bu ñuy tëgg euh, la ñuy def matière bañ cee nekk talent lañ ci am waaye boo leen fekkee ci yoonu Serigne Touba talent lañ ci am talent bu wér lañ ciy doxee ku fi ñëw tey da ngay yaakaar ne tey autorité moo taxaw suñu ginnaaw déedéet du autorité nekk suñu ginnaaw du kenn ne suñu ginaaw ñoo yor suñu 100 francs ak suñu juróom ak lu waay am di ko dajale ba mat uude yi corde nit ñi ñëpp ci jàpp ba vent 26 ba angle 28 ñëpp ci jàpp ba riz 25 ñëpp ci jàpp alaaji fay mii ak Mbaye Dieye Mbaye Moussa waa kër yi ak euh, soxna yi xale yi ñëpp a ciy jàpp fii bu 18 heures jotee sa yaram day daw 17 heures sa yaram day daw ñëpp ay di def di xàccandoo di dërandoo waaye lépp ñu koy ñant ñu koy sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasuul suñu yaakaar tey ak ëllëg di jaajëfalaat it koo xam ne mu murit saadix la di maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne tey bokk na ci li ngeen ma ma doon laaj léegi Euh, naa ma màjjal bi ma ne la màjjal bi ñi bi ma ko njëkk a def am na ku ma nuyu kilifa gu mag ne ma la ci encouragé di la ñaanal da xam sa xalifa la waaye bu ma ko moon naa la koy def waaye yaa ngi nax ñëpp waaye man yëguma ci dara lu sëñ tubaa sëñ tubaa rek laa ci yëg sëñ tubaa dong laa ci yëg ndax euh, xañ na boo doon taxaw tey di màjjalloo kenn ci ku rëy du ko man taxaw di rëy du ko man ndax Baye Fall moom mooy ñukk ñukki joxe day ñukk du ñukk du joxe te loolu Cheikh Ibra ko fi dafa dafa dafa am lu mu bay ci waar yi lu doy waar mooy yëndoo liggéey fanaane root gars yi nelaw banaan xuret Cheikh Ibra moo tax jox addiya Cheikh Ibra moo tax tey ñuy tukk ni taalibe yi naan rukk suuf ku sant Mbàkke tocce ko Cheikh Ibra Fall ko fendi kon maam Cheikh day koo xam ne bu doon yoonu murit man euh, droit de terre la moom lañ koy jox lii ñun ci lañ bokk ndax doon na lu rafet jëf ju rafet la dañ koo rafet lu moo tax ñu ñëw tàbbi ci biir yàlla dogal na nag ñun juddoo ñu ci koñ bi mel na ni fi lañ juddoo parce que ñu ngi jógee ba ngaay mexe ñëw fii di daan suñu ñu yaatal ñu trop maire yi boo def ñu comme doomi ñu jur bàyyi ñu def ñu comme doomi ñu jur ñoom ñii ñu ñu féete mag def ñu ay rakk ñu ñu féete xele def ñu ay mag mu doon lu rafet loo xam ne dañoo kontaan ñu yaatal ñu ndax ci loolu lépp ñun am nañ fi daayira bu mag boo xam ne sax ñoom ñoo ñu far ci biir kër gi foofu la ñuy bu ñu amee bés ñoom ñoo koy taxawu ñoom waa kër gi yëpp loolu doon loo xam ne dañ kontaan nañ ci trop ñun ndax lii jëf ju la lu baax ko fekk dañ caa a. ñuy wax ay gars yi jeexeen religion yi nii a ko moom yéen musulman yi yéen chrétien yi bépp xeet bu am fii Sénégal fépp ci àdduna yéen a moom émission bi yéen a moom télévision bi ay gars yi ñu yomb Maodo Garnier yi naaru ajal fi liggéey jàmm bii fii ci TFM religion ak ndogu yi ay Baye Fall xaar leen ma te xam ne nii ma def Médina def ko feneen ak feneen fépp dinaa fa ñëw ñu teg suñu ndogu joxe suñuy café jënd suñuy tàndarma. di leen jox rendez-vous ba beneen yoon merci beaucoup.